enquête parlementaire selon seen ay règlement na mooy fonctionner amuloo droit génn ko ñoom ñooy xool lu ñu cee génn luñ ñu ci dul génn leen ca neex leen ca neexul mais où est le peuple nom de Dieu ça s'appelle du foutoir d'État entre guillemets neexut a dégg ñun bu ñu waxee ñu ne ñu nous sommes dans l'émotion parfois ñenn ñi sax naan non non ils sont prétentieux ils sont incorrects mais ces gens ne nous respectent pas sëñ bi dañu nag teg xel la rek mu gis nga bu bala nga ko doon xam nga wéet ak ñoom dañuy saagaay ndey. bala nga ko doon xam nga toog miin leen jege leen di wéet ak ñoom di waxtaan da naan waaye gars yi dañuy coow rek dañuy kii rek mais ces gens ne nous respectent pas et malheureusement à constater tout cela on se rend que wallaay du ñëpp war a jiite réew on se rend la vérité du ñëpp war a jiite du ñëpp war a bokk fa ñuy jiitee parce que Sénégal wàcce nañ ko rabaissé nañ ce pays la yóbbu nañ ko ngeen foog ni toutes ces chances chancelleries ambassades yooyu yëpp ñu wax ne ne leen parce que waa Canada information yi ñu leen jox. Mhm. li ba Moustapha Diop di wax information bi daw ci biir canadien yi xam nga lu leen wax moytu leen kat boo xefee kat foofu élection bi dañ ko naan reporter pour deux ans. deux ans bien sûr. et que mën naa deux ans mu donc moytu leen président bi waxul xam nga mënuñu mënuñoo wax tey ne deux ans mënuñu ko wax. Ah. mais le poste le, le style c'est quoi de 2012 à làmb nooy na on avance làmb nooy na on avance et c'est pas gentil. te deux ans yooyu ajouté woon nañu ko sax avant président di renoncer. je te dis amoon na temps ñu ne nañ ko may deux ans le temps que mu aplanir les choses. mu dem donc ñoom si logique boobu la ñu nekk ba léegi. le président Sall taxaw na. deux ans presque demi mandat la. moo taxaw ne hors de question d'un quelconque report moom nag lenn la ma neexee te danaa ko wax ñëpp dégg li ma président Macky Sall neexee ci jamono bii. mooy la mu bëgg a def def ko. il se donne les moyens. ah loolu moom neex na ma si trop. Mm. parce que 2011 ba mu taxawee ne Ousmane Ngom du fi gérer élection dafa taxaw fenn. élection yi kenn du ko reporté dafa taxaw fenn. loolu est-ce que critique la booy def ci opposition actuelle bi. Ah, ah, ah, objectivement oui. Mm. Mm. parce que ñi nga woo ñëpp téléphone. kilifa yi déglu naa leen de l'opposition Pape Djibril Thierno Alassane Sall Déthié Fall. Bougane euh, Bougane mais. j'aurais aimé à l'aboutissement de leur discours de leur speech ñu ne dès aujourd'hui à partir de tey dinaa danaa danañu je vais mais ils s'en sont limités à constater point. mais Bougane nee na moom à partir du 2 avril dootul considérer Macky comme président de la République avril dafa sori man ma laa wax nii Pierre on parle de maintenant. c'est-à-dire ici et maintenant tey la ñu war a réagir ñoom. non l'opposant hmm. l'opposant aujourd'hui il dit il est hors de question d'un quelconque report loolu lañ doon dégg fan yi mais discours bi bu génnee ñu ne ajandi nañ ajandi décret bi annoncé ni le 25 la ñuy def élection mais loolu à la seconde l'opposant qu'est-ce qu'il fait il dit ñett je ne suis pas d'accord duma ko nangu et il trouve la solution de sa stratégie c'est pas à moi de le dire mais mënuñu toog après bon ok waaw oui Sénégal on a mal non ñun ñooy toog ñun ñi nga xam ne duñ ci lenn naan on a mal ak on a kii ñoom c'est voilà l'affaire après quand j'entends monsieur Thiaw qu'est-ce qu'il dit ci biir opposition bi ci kaw dañuy kii nii mais ci suuf loolu daf leen arrangé j'ose pas imaginer que ça les arrange mais mais sëñ bi l'un dans l'autre bis dina ñëw incha allah tous les complices mhm. seront à découvert mais aujourd'hui saaga nañu peuple bi trahir nañ peuple bi et c'est la haute trahison. ñu gëm ko ñu bañ ko gëm ñu nangu ko ñu bañ ko nangu ce qui se passe avec ce régime la c'est des coups fourrés à n'en finir contre un peuple qui souffre et ils s'arrêtent pas. Mm -hmm. ces gens ne pas ñoom xamuñu taxaw quoi ñoo scooter yi daw ci mbedd bi ñoo yem duñu taxaw amuñu angle mort amul c'est-à-dire mbëkk léegi nag koo xam ne du taxaw dana kaa taxawal. ñu ngoog le temps que ñuy installé euh, Cheikh Niass euh, PDG du groupe Walfadjri ñu dem euh, jëli Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia nag moom mooy candidat bu PUR Aliou Mamadou Dia ñu ngi lay nuyu. Aliou Mamadou Dia. maa ngi Pierre maa ngi lay nuyu. waaw alors ban taxawaay nag ngeen nam amal ci li am tey am di tey di élection yi ñu reporté Sénégal yu bëri foofu lañ leen di xaar. au delà des condamnations de principe. oui mais il faut condamner d'abord il faut je pense que il faut condamner il faut ñu naqarlu li nga xam ne moom moo xew il faut ñu dénoncer ko parce que li xew c'est un coup d'état constitutionnel li xew mooy dañu salfaañe suñu constitution li xew mooy benn nit moo taxaw décider les sénégalais yi du ñu organiser élection c'est le président de la république donc loolu dafa grave il faut ñu dénoncer ko d'abord parce que foofu la ñu toll la affaire bi mu ngi soog a xew li ñu mën mooy yëkkati suñu kàddu naqarlu ko wax ne li fi xew jaaduwul wax naa ne sànq